nañ dem foofu nga xam ne mooy ca Louga dem seeti doyen waaye ki may jox sama micro artiste bu mag la théâtre kat bu mag a mag la Marème laa jox sama micro ci li nga xam ne mooy festival Kepar bu kan doyen ñu dem xool ko ayca. asalaamaaleykum Aba maa ngi lay nuyu bu baax a baax. Ah, comme nag euh, yow yaa ma yónni Louga. ci festival bu mag bi nga xam ne bi mooy troisième édition. kan moo ko organisé. muy euh, ku bëgg njàmbur ku bëgg Louga muy doyen. Mm-hmm. léegi nag comme danga maa yónni. ayca du ma jubal direct rek ma dem defi affaire bi non non. damay jàdd ci restaurant yi xool nan la gan yi toogee def dara ci biir bi. Oh. doog a dem rek ñu tas ko tasaare ko. voilà Aba gis nga tey jii fi toll nii comme li ma la waxoon rek. lekk naa ba suur. dama fakal macha allah doyen wàcce na Louga ba zéro. waaye doyen bi ñu Aba ak Marie rek nii nii damay lijjanti biir bi d' abord. waaye dafa lu xew ñoo ngi nii fii ci programme bi kullu xadarin koo xam ne moom ak doyen benn lañu. waa tey jii dama takkale macha allah ngeen ñëw teewal doyen bi boo xam yow doyen kenn ngeen mu ne doyen ne doyen oh, bu oh, xar oh, waa tey noo ko dundee rek tey ak bés bi ak ni mu bëggee njàmbur nekk xale bu ndaw ah lii di troisième édition yow loo loo yëgee waaw xam nga Marie gannaaw ba ma nuyoo téléspectateurs yi nga xamante ne ñooy seetaan Dakar ne dort pas Euh, Louga am kenn ku ne xam ne dañoo mën gan njàmbur dañoo mën bés te it nga woote say mbokk wuy si la say xarit wuy si la say doomu ndoy wuy si la dafa neex moo tax bis bi dafa ma soñoon doyen chaque trois mois la koy def. merci beaucoup Ndiaye kontaan naa kontaan naa la Aba tey dañ koy toj tasaare ko foofa wàcc. nit dimbale boppam lu baax kër yu rafet ñee oto yu rafet yi ñi ko fa tax a jóg jàmbu ne warul te dimbale boppam lu baax kër yu rafet ñee oto yu rafet yi ñi ko tax a jóg taala macha allah euh, nag waa tey jii ñu taxaw koo xamante ne nii macha allah moom feccu liir bu neexee nday jaatee ca mbagg ya muy soxna wu doyen ah Soda ñu ngi lay nuyu bu baax a baax. maa ngi leen di fay waa soxna noo dundee bis bi nga xamante ne nii sa borom kër moom moo ko organisé muy troisième édition lan moo si sa xalaat ci bés bi. la directrice du ah, centre culturel régional wax alhamdulilah rabbil alamin ba troisième édition bi yàlla na koy fête ba centième édition kontaan ci moom rek di ko ñaanal gudd fan ak wér gu yaram sutura ñëpp xaj daal ndax euh, moom lu moo ko ñaanal rek doyut ñu kii ma taxawal duma la ko présenté kii mooy papay mari booba di xaritu doyen dëgg neexul per bu xat nuy naa la mari mari booba fay naa la noo def ak noo dundee festival bi ni ma ko dundee am contentement rek am yëg-yëg ca man xam ne mbir mi kat amul tànki gannaaw waaye am na tànki kanam ma ngay dem waaw te nag ren ku xool fi ne xam ne duwaar kàlla mbir maa nga yokkute ma ngay dem te lii leen ci doon doyen bu wootee jaadu na sax dëgg la Louga war na noo génn waaye génn sax du force waaye boo xam nga mën ngaa luyee siis mën ngaa luyee baas mën ngaa luyee suna waaye ay nit kenn mënu leen a luyee. sëñ bi noo ah, neex na de doyen moom lu mu def du ndaw suñu waay la waa Louga la. donc euh, dañ koy delloo njukkal rek di ko parce que mënoon na yem Dakar rek di def yëfam mais dafa fàttaliku ni fii la jóge fii la dëkk fii la màggee fii la yoroo ñu dem ci Sidi Diop gantu naa que l'amour gantu naa jooyloo fii la way bi bi ko Sidi Diop di ci douze la ko inspiré woo douze li du si nag bi xajul ci jën bi man Mari Ndiago sama maître laal na Macky Sall laal na Ablaye Wade du ma ko laal waaye waali laay tëjee parce que waa Daaray Kocc ñu ngi solu te xam naa ne temps bi maa leen ko retenir pour ñu pare asalaamaaleykum adduna asalaamaaleykum Sénégal non def leen def leen ndànk def leen ndànk nanooy nanooy waaw kay man Waly Balago Seck maa ngi charré tout le Sénégalais di signaler tous les Africains xam nga Sénégal coow li bëri na wax ji bëri na mais nag nañu xam ne sëñ Bamba ak Cheikh Rafal ana taalibay sëñ Bamba yi voilà mi ngi noonu léegi nag léegi nag na ngeen xam ne damaa woy woy bii dama ko way képp ku may déranger bu fekkee dama lay déranger désolé nga baal ma jëj xam na sax ni ma mel ci réew mi neexul la désolé am so sorry su dee lu ma daan yal na teg ci loxo ay ngëneel mu xam bàyyi ñu ne ñun bu jëlee gën bu sax ci man non non li nga daj ci bi ma yàq soo daj doon ci liggéey weesu fi je suis désolé. waaye nuyu naa la. Marie fay naa la bu baax. tey kontaan ci yow. waa ñu ñëw nag tey ji ci bés bi nga xam ne mooy festival troisième édition ñu ku xam na ne festival du lu ndaw muy lu méttee méttee métti muy laaj ay moyens ñu bëggoon a nag taxaw xam tey ji yow nan nga dundee festival bi ak noo ko waaw ni ñu ko waajee rek mooy sant yàlla jóg dañ naan takk takk jóg takk jóg ñokkali ay prestation yoo xamante ni takk jóg rek taxaw am solo la mais parce que balaa ñuy def dara def xam nga nit booy def dara kenn koo xamante ni demal ku la ja fekk nga def ku la ja fekk nga def mais yàlla suturaal ñu bi ñu jógee lu nga nekk ci suñu ginnaaw ñu am ku mel ne As Diop am ku mel ne Mamour Diallo am ku mel ne Cheikh Ahmad Jimbira Ndiaye digal ah du tiit dañuy nga daa amoon benn waay bu doon woon ne nenam ganaar ya fu ganaar gi nene mu woon ni ne ñu dem omelette lekk fu ganaar gi nene mu woon ni dem omelette lekk benn bis mu ñëw woon ni ganaar yi dem di omelette nen bu mu toj du fekk dara ca biir nen bu mu toj du fekk dara ca biir saa waaye toog di jàmbat mel na man rek bëgg ganaar ak i nen ah ganaar yoo xam ni moom tookal la fi mu ne nii nen boo toj dara nekku ca sekk nga génn fële ne ko yéen da ngeen defe yéen da koy protégé wu xanaa protège laa utiliser ayca mu ngi noonu ah, loolu am na solo kenn du mari ci man ah mari maa ko yónni foofu ca Louga